mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo bàyyi xel senego.com ñoo leen jaajëfal tey nag comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi fii ci Dubaï ñu ngi ak monsieur Ibrahima Diagne moom nag euh, dañ koy bàyyi mu présenté rek monsieur Diagne ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen fay yéen waa Sénégal di kontaan ci yéen ci li ngeen ñëw fii. Euh, bon man maa ngi tudd Ibrahima Diagne euh, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi Dubaï depuis mille neuf cent bon à part Dubaï quoi émirat quoi laay wax. depuis 1992. voilà maa ngi fi quoi bon maa ngi fi ak euh, ak sama famille di yaakaar doy na ah, wala ma continuer. waaw baax na baax na. ok léegi depuis 92. kon mën nga ñu wax lu bari ci biir Dubaï nan la Dubaï meloon 92 ak Dubaï 2021. waaw euh, en 92 nag moom boobu temps Dubaï ni meloon ak 2021 am na différence boo maaga maaga maag parce que en quelque sorte ñii ñoom wax dëgg yàlla ñii ñoom euh, dañoo bëgg seen réew xam nga naar lu ma gën a neex si ñoom moo nekk ñoom dañuy ñoom dañuy tiitaroo si seen réew ñoom dañ naan dañuy dañoo bëgg seen réew euh, ku fi ñëw gis loo xam ne mosu ko fi gis mosu ko gis fenn ñoom ñoom c'est que ñoom loolu loolu ñu tiitaroo bon autant amoon na ay xarit bon léegi moom comme yàgg na mais bi ma nekkee fi nga xam ne ay kebe am na ay xarit duggante ak ñoom quoi waa réew mi mais dañ naan la euh, ñun suñuy suñuy kii moom ku fi ñëw rek te boobu taa a wax de ku fi ñëw rek kontaan da ngay gis loo xam ni mosoo ko gis fen si àdduna bi donc naar bëgg seen réew lépp ñu am mu jaral ko seen réew ñu def ko seen réew loolu mooy loolu si côté boobu moom naar ak li ñuy kii yëpp mais côté boobu moom dem lañ fa bëgg waaw parce que comme ni nga wax ubul wattee parce que ni ku nekk rek bu bëggee boppam rek na bëgg réewam parce que bëgg si réew mooy lépp waaw parce que sa réew moom kenn war ko caaxaane fi nga xam ni say maam ak say maam fi juróo fi nga fi nga kii loolu da war a fonk mu nekk sa alal mu mel sa alal bopp sa kër sa sa fa kii mooy loolu mooy sa réew voilà donc loolu la daal. ci comparaison bi entre ni mu mel waaw ah ok ni mel ak fi waaw parce que euh, boo xoolee ñoom euh, euh, ñoom tout le temps chaque jour bëgg ñu loo bëgg ñu loo xam ne nii lu màgget la lu ñaaw la ñoom tout le temps loolu war a tax que boo fi boo fi boo génnee fii six mois un an boo ñëwaatee di nga xaw a réer parce que ñoom tout le temps ñu ngi defaraat tout le temps ñi ngi toj ñu ngi def defaraat tali ñu ngi changé waat kii pont nangam nangam kii building kii ñu changé waaw loolu yëpp ci li muy wane mooy bëgg sa réew lépp loo xamee ni ay def si def si jar ay milliards ay ay euh, waxuma la ay millions ay ay dañ ko si def mais nag bon c'est dommage que ñun africain ñun moo tax Sénégal ñu africain da ngay ñëw tey ji am benn marché dañ joxal te tey ji un milliard nga li nga xam moom ngoo def un milliard nga def ci cinq cent millions wala wala cinq cent millions ah euh, wala 300 millions te te moo tax ñoom seen i seen i building ak seen i changement bi daal loolu moo waral moom moo di daal ñoom daal boo xoolee en 92 boo mën naa la wat ay kii yu bari yoo xam ne nii boobu ak léegi dara nekk fi woon dara nekk fi woon donc même fi ñu même fi ma nekk nii sama kër gi ma nekk nii nga xam ne fii nii mu ngi nekkoon hôpital la nekkoon ñu ko doon wax Maktoum Hospital Euh, mooy ci ci année boobu ba ba deux mille deux mille un mais pour le dire dafa dem ba temps boobu comme dafa yàgg ñu toj ko ñoom dañu xalaataat que ñu changé ko. si sëñ ko def nii ay ay ay building ay cité euh, def ko cité A B fi ñu nekk moom mooy A am na B am na am na D def ci hôtel def ci ay marché def ci ay cantine donc ñoom ñoom ñoom seen vision dafa dafa garaaw dafa garaaw. waaw suñu xoolee Sénégal suñu yenn ci ay mhm. wax ne suñu dëkk am na pétrole parce que nee na suñu xoolee 1992 Sénégal moo tane woon Dubaï ci wàllum business ci wàllum budget wala dara tey bu ñu ba Dubaï raw ñu parce que suñu experts yi dañuy jël exemple. voilà est-ce loolu nga ma ko dëggal voilà foofu noonu damay kontaan loolu pour waxal la parce que dama ci xam lu bari. ji nga ji ji réew mi ñu nekk nii. du du Dubaï de. réew moo tudd des émirats arabes unis ñu koy wax United Arab Emirates ci arab ñu naan ko Itaat euh, al Arabia al Mutaahida donc ñoom dañoo def dañoo jël xam nga naar yi seen vision ñoom dañuy jël américains yi européens yi ah, anglais yi di leen di leen xool ñoom fu ñu nekk ñu fekk si leen fa parce que ku ñu wax Cheikh Zayed na ko yàlla yërëm moom moo fonde dëkk bi moo fondé union bi quoi moom mi ngi Abu Dhabi foofu la foofu la nekkoon euh, ñoom seen euh, seen union bi ñu ngi ko fondé en 2 décembre 71 donc bien avant 2 décembre 71 ku nekk sa muy Dubaï non sorry muy Abu Dhabi premièrement muy dubay fii muy Sharjah ñu tax loo muy Ajman Rasul Xayma Fujairah Umul Gayewin ñoom juróom-ñaar. Euh, paa bi euh, mooy Cheikh Zayed vision moom mooy que euh, temps boobu que ñoom amuñu woon amuñu woon dara bien avant loolu amuñu woon dara boo xoolee ci ay gileem lañu doon kii ay montagne bon diggante feeg feeg feeg Abu Dhabi capitale bi c'était ay cent quatre-vingts kilomètres mais dégg naa ay ay ay ko daan kii laal bu bu doon dem parce que amuñu dara amuñu woon mais dañu jékki-jékki rek pétrole bi génn. comme Sénégal ni ñu li ñaan ak ak département ñu génn mais ñoom li may wax rek que bëgg seen réew jaral leen que ñoom du duñu du ñu lekk duñu naan defar seen réew pa bi am boo xam ne ni pétrole bi génn euh, ñu commencé di changer dëkk bi di ko def si dëkk bi nag demuñu Euh, euh, euh, comme ñun nga xam ne ñun suñu pétrole baa ngi waaye génn ñu lu nekk si dégg ñoom ñu commencé di defaraat dëkk bi di defar defar ci la paa bi mooy Cheikh Zayed bin Sultan Ali Nahyan am kii que mu gisee buuru Dubaï bi fi nekkoon mu ñuy wax Cheikh Racine moom na quoi Cheikh mu jéeg moom ak ak yenn kilifa yi yi nga xam ne ñoo fi nekk nii ci émirat bi mu waxtaan ak ñoom comme quoi que ñun euh, actuellement nii euh, xéwal ñëw na suñ dëkk bi pétrole bi kii na léegi dañu bëgg ñu ñu boole. dégg la paa bi Cheikh Zayed moo moo amoon bonne vision mais nag ci pétrole bi ngay gis ni yëpp Abu bi moom moo gën lee moo ëppale quoi. du Dubaï topp ci Sharjah ñëw. donc ñoom ñett. ñoom ñu am tool ñu am mais yeneen dëkk yi muy Ajman Rasul Xayma Fujair Umul Kay ñoom ñoom tamit amuñu daal pes amuñu tuuti lañu am léegi nag paa bi léegi ñun. Euh, moomu dem gisee que euh, Cheikh Rachid mooy borom Dubaï mm-hmm. ak ku ñu wax Cheikh Sultan mooy borom Sharjah pour ñu ànd jël ñële boole leen ñu nekk ñu def benn union topp toppandoo comme comme américains yi Amérique c'était Amérique c'est cinquante deux états ñoom ñu ne même même même avec ça tax pa bi booloon na ci Qatar dawa bi ngay gis nii parce que Dawa boo si Dawa lu law la. Dawa benn benn benn dëkk la Qatar benn dëkk la mooy capitale Dawa foofu la amatul leen. pas booloon même Dawa bokkoon na mais dernière dernière kii bi ñu bi ñu jëloon pour que ñu signé affaire bi muy le 2 décembre 71 mooy seen jour indépendance ba tey jii bu bu la fekkee mooy seen jour indépendance la ñuy feet seen indépendance ci la Dawa retiré wu moom xam nga lu ko tax ñoom. en tout moom si ci la ci la bàyyi quoi ñoom ñu boole. tudd United Arab Emirates des Émirats arabes unis ñu jël nag Abu Dhabi comme pas bi moom kenn ñoom ñu ëppale kii ñu def ko capitale ñu dal Dubaï comme mooy kii ñu def ko deuxième ville capitale commerciale. voilà ça Abu Dhabi mooy capitale administrative mooy administratif. fa la fi euh, fii fii mooy capitale commerciale. boo euh, boo xoolee Abu Dhabi fa la ambassadeur yëpp nekk. Dubaï fii conseiller yi fa la nekk. mi ngi rek comme comme ñu ne am ñu ne Riyad fa mooy am mooy ambaas kii euh, ju jidda mooy kii waaw voilà genre yooyu donc noonu ñoo noonu la noonu la ñu doxee ñoom seen réew di dem di changer di tabax di kii boo xoolee te am na benn kii bu benn bon ñu nga xam ne jàng jàng nañ fi tuuti tuuti quoi nga xam ne am nañ fi tuuti jàng tuuti la mais dañ leen war ñu ñu ñu wan naan ñu euh, bi fo émirat yooyu e, bi fo pétrole day afri pétrole bi. ok dañ la man ñi woon la àll bi désert mu mel ñu woon la afri pétrole bi ñu ko changé. ok eh waaye ñun tamit Sénégal ah ñun Sénégal te ñoo mel ni ñii ah ah changé changé suñu réew. parce que pétrole ak gaz ak kii xaalis la. loolu bu dee diir actuellement yaa ngi gis xale yi fii ni ñu fi mel xale yi di dee ci géej bi nangam nangam bu ñu defoon loolu kon ñun du ñu soxla dara nit ñi ñëw soxla ñu mais kañ la ñuy am ko euh, njiit loo xam ni moo ñuy mel ni Cheikh Zayed wala wala Cheikh Racine. est jarul kon comme sama analyse suñu autorité ñëw fii di def di xool projet yi di laajte histoire yi ngi lay wax benn maa ngi lay maa ngi lay wax benn anecdote mhm. en 2004 ci la fi bi paa bi Ablaye Wade bi mu jëlee nguur en 2000 en 2004 ci la fi njëkk a ñëw visite officielle. boobu temps tax fekk fii si Cheikh Zayed bi gaañul woon ndeysaan moom moo mu moo recevoir paa bi mais après quelques mois rek ci la paa bi gaañu parce que même année la paa bi gaañu la la la kii quoi gaañu Cheikh euh, Zayed bi paa bi bi paa bi lay wan ñëwee ndeysaan keroog maa ngi nekk ak ñoom ah ministre yi même ay Macky Sall yëpp ñu ngi foon ah. ministre kii boobu ñuy waxtaan ñu ah waaw yéen seen mi ah, xam nga rek ñu nekkoon ci oto bi ci kaw euh, Abdou Diouf mi ah yéen seen réew mi kii ne naa ma leen ah ci nga ñoom de ñii de ñii de ñoom euh, il faut ñu xool si ñoom bon benn ñaari moom mooy euh, euh, pa bi ah Abdoulaye Wade en 2006 en 2007 mu ñëwaat fii boobu la doon préparé aussi ànd ak mboolem ministre yëpp pa bi fii defoon na fi Dubaï. abré bi xam nga xam nga ñëw ko abré ma capital bi fa ngay wàcc. mais après da ngay ñëw Dubaï pa bi defoon na Dubaï presque deux semaines ñoom ñëpp la ànd loon ministre yëpp kii wu ñaar ñëpp. mais boo xoolee Karim euh, même avec euh, kii bi ñu tëddi euh, waaw même tunnel bi yi am fii yëpp boo xoolee. boo xoolee tunnel yi am foofu yëpp Karim fi la ko jëlee. boo xoolee même waaw yëpp oh, non am na fu ma la doon wan nii jaarale. boo bëggee ma wan la da ngay gis ne même chose Karim lépp fi la ko jëlee ak même ci ci beneen bi. non pas beneen bi ci corniche bi ah. euh, kii yoo mu defoon noonu tànn ma yooyu yëpp yooyu yëpp boo xoolee ci Abu Dhabi corniche Abu Dhabi bi fa lañ ko jëlee donc ñu ñu kii am na euh, ndeysaan maa ngi ko sama benn waay bu bu kii dama ci tax turam ma ma laaj turam euh, benn kii la bu mag quoi ku ñuy wax Pamasta Diagne dama ko fàttali en 2006 en 2006 ndeysaan ñu ànd bon comme bi ñëwee ma leen ko booleel ñu ànd ki ndeysaan ñu ànd mu ma waa mais sëñ bi xanaa ñun suñu suñu suñu suñu suñu gouvernement yi xanaa ñoom duñu fi ñu xool ma ne ah mais yàggul dara si li mu wax loolu c'est devenu ci ci ci la paa bi ñoo ñëpp ñu si lañu defaraat kii bi ba bopp daal ñu ngi ñu ngi pare aussi beeg yooyu quoi waaw donc. kon daal côté boobu jàpp nañ àdduna bi yëpp wala war nañu mën a roy ci ñoom ñu mm. doxalee mm-hmm. boole comme mm-hmm. union bi ñuy wax ne bëgg nañ ko sax parce que même waa bëggoon na loolu union africaine bi bëggoon na ko mm-hmm. mais finalement euh, dafa mujjee tàbbi géej comme d'après euh, mën nañu wax ne depuis quatre-vingt-douze ba tey comme gis gis nga dëkk bi ni muy doxee tey foo ma a nettali anecdote bi ngay ñëw ci dëkk bi tuuti rek nga wax ma bi ngay ñëw ci dëkk bi nan la menoon bi ngay ñëw lan lan moo la fi indi woon da jàng si woon wala da nga liggéey si woon genre benn voilà man bi may ñëw bi ñëw si dëkk bi concretement man ñoo moon pour euh, ñoo moon pour jàng si dama bon xam nga rek boobu temps yaa ngi bëgg a génn Sénégal yaa ngi bëgg kii bien que jàmm jàng nga fa mais mais quand sama kii bi moom mooy que naa dem Europe. bon bi ma jafe sa samay kii bon euh, ñu ne ma léegi bon euh, boobu temps amagu commerçant ay benn ñaar ñoo ñëw fii benn c'est-à-dire que xamuñu woon. xamuñu woon non non woon ma léegi nag après ma kii rek samay kii euh, samay déglu kii bon ma amoon na nag ndeysaan koo xam ne ni gaañu na quoi. ñu ko Ablaye Mbow. moom nag moo indiwoon sama yenn kii yu nga xam ne ñoo nekkoon woon Kaolack dañ la bàyyi moom ñoo la indiwoon fi ñu ñëwoon ñu ñëwoon jàng si. li li ma li may li ma wax ni 87 euh, 88 la woon. boobu boobu man bëggoon naa mais far affaire yi so sotti woon quoi ma bàyyi ñu ñoom ñu ñëw. ñoom ñoo fa nekk fii euh, pas euh, pas Dubaï quoi ci boor Abu Dhabi quoi benn benn région ci ci Abu Dhabi ñu ko wax Al Ain nekk foofu. bon man comme comme man tamit euh, bëggoon naa mais affaire bi sottiwul ma bàyyi. nekk nekk sama la activité am amoon naa tax kii ba doon ba doon kë kë ci di liggéey quoi ci ci ci Sénégal doon naa def lu nekk ah doon naa def ay ay M3 temps boobu ay M3 ay SONES. di def ay journalier yëpp naa ko. jóge fa ba ma dem bi bon ba 92 nag ma ma dajeek euh, ki nga xam ne ni moo ñoo ñooñu fii euh, moom jóge fi ñëw foofu ñu dajee après juste na koy laaj na ko ah, yow naka la réew mel fu mun ma ah xal yaa ngi de ah, mais ku ma dem foofu nag nooy def mun mu ah man daal am na sama benn bu may bëgg ñëw ni am na benn xale bu ma dajeel mais xale bi am na fu mu jaar benn agence kii laa Saudia ñu wutal ko visa mu ñëw fi man ko bon mu ne waaw kooku daal lu mu naa la ko wax bu dee nag yow loolu la ma wax mu bàyyi bo après ma toog ay quelques jours xalaat ba mu yàgg ma xëy rek dem boobu temps Sawja ñu ngi dox ci ca ki kii ci kii laa ci place la place la place la nekkoon ma dem foofu ma dem ci Sawja laajte ne leen dem parce que boobu temps ñaar la Sawja wala Air Ethiopia Airlines ñoom ñëpp ci place la place la nekkoon ñoom ñoo doon wut visa quoi boo bëggee euh, boo bëggee wax ne damay dem Dubaï pour commerce ñu ñu wutal la visa. Mm. mooy visa transit yi quoi yii nii. ni muy amee ba tey nii. ba tey mm-hmm. man ci loolu ci loolu laa ñëwee woon. bon ci naka laay ñu laa lay wax quoi. après ci laa dugg fee laa ñuy fee laa ñuy njëkk a dem sa sa Saudia non fële quoi ci ci Ethiopia Airlines. ma laajte waaye dama non waaw yow commerçant ma ma ne ko waaw dëgg fi te boobu taa kat Gambie laa doon dem benn yoon yaa xaw ma jël fa ay kii billaay wala bon léegi mu commerçant ma ne koy mu ne ok léegi ni nii la affaire bi demee nangam nangam da ngay jënd billet ñu wutal visa nga jox sa passeport nangam nangam kii ma ne ko ok ma laaj billet bi billet na dem Éthiopie parce que waxoon nañ ma Éthiopie ak euh, ak Saudi Airlines temps boobu ma dem Saudi Airlines ndeysaan affaire bi yomb lool mu fàttali trois cent quarante six waaw bi aller retour non non aller retour waaw boo jël boobu aller retour nga jël parce que visa transit nga am quinze jours da nga war a transit quinze jours euh, boo léegi nag ma daal di jënd billet bi bon euh, comme risque rek bon boobu tax xam woon ma ne léegi moom man daal comme am naa billet Euh, am na visa léegi damay dem foofu xool fekkee kii wut ma jàll ma jéem a dëpp dëppal pour jàll dem Europe quoi loolu na ko sama kii. yàlla may ma ma sëriñ bi nag yombal ma wax ma affaire umra yëpp quoi euh, bon boo tegee lii ñu wutale visa nga xam ne booy dem Dubaï da ngay comme comme sëriñ bu jógee Dakar day dem Jidda euh, bu neexee nga def sa umra benn fan ñu ñaari ah, noonu ma daal di jënd <laughs> béy bi wut sama visa daal di daal di ñëw jaar jidda dafa benn fan am na ku ma xamoon mbool am ku ma boolee muy Pa Ñang bu ñuy wax Pa Ñang boo xam foofu sax dina tax gaañu na aussi ba jaar këram def benn fan daal di ñëw bi ma ñëwee fii laa wàcc euh, benn hôtel Sarja euh, benn benn naar xam ni ne la woon moo ko doon def ku ñu wax Assane ba léegi mi ngi fi tax kooku dafa amoon problème ak sengoor mu laay daw Sénégal ñamu dem Sénégal xam ba problème la parce que moom du la nga wax mais am na am na problème ak Senghor ci jamono boobu mu daw ñëw fii am fi hôtel am dafa visa donc moom euh, Senghor moo leen jël si aéroport bi daal di yóbbu ci hôtel am ma fanaan fa benn fan ñaari fan am sama gars yi ma lay wax ñu jóg àll ñoo ma ñëwoon jël si na ma booy gànjam fii moom daf dafay seer parce que ina loon tuuti xaalis ma fay ma fay ñee ma fay ñaari fan daal dem foofu mais après bu demee foofu ma xool situation bi gars yi ngi jàng man tamit sama bon mun ma kii quoi ma xam ne daal si laa ñëwaat fi Dubaï di euh, nekk nekk samay kii di di dëbb dëbbal di kii ma maa ngi fi doon liggéey benn euh, non d'abord fi ma fi ma yàlla dimbalee nag laa lay wax mm-hmm. bi ma ñëwee. kooku noonu ki ki nga xam ne moo fi indoon ñooñu muy euh, dama gaañ euh, mu ñu wax Ablaye Mbow. kooku waaw 87. kii ki la fi indoon noonu. bi mu amee visa bi laa dem ci moom. ma dem foofu daa tax mi ngi woon fële ma fekk ko fa. ne ko man am naa mu ne ah, am nga foo jël li moo moo ko fi ma jaar. mun sëbi léegi mu ne ma xaaral naa la benn benn leet. comme yow sa visa bi dafa gàtt. naa benn koo xam ne nii boo demee ci moom parce que man ki ma lay wax xale ma la wax kooku kooku maa ko defoon leet mu dem kooku mooy ko këyit. parce que kooku mi ngi liggéey ci gouvernement de de charge quoi. ndeysaan noonu la ma defalee lettre bi bi ma ñëwee ma wàcc foofu dama dama ñëw rek si si ëllëg si rek ma na laajte euh, foofu ci kër gouvernement bi ñu koy wax diwaan diwaan charge ma laajte fi ñu ne ma fay la ma am ku ma àndal mu yóbbu ma ma dem si paa bi jox ko lettre paa bi ni de lettre bi mu ñu ma yow fan nga jógee man ko Sénégal yow ah Sénégal nga jógee ñëw fi ma ne ko waaw mu ne ok léegi mu jox ma lettre lii dama wax baax na suba wala nga ñëw indi ma sa passeport en tout cas man daal sama visa visa 15 jours laa ñëwee mais balaa visa bay jeex jot naa sama séjour ba dem ba dem Doha xam boobu temps foog nga génn quoi. pour nga changer waat visa. ma génn Doha ñu ñëwaat ma am sama séjour 5 ans. temps boobu 5 ans la woon. oui bon ci laa ñëwee nag ci laa am rek man léegi kon léegi jëntu may dem fenn. naa toog fii lu mu fi mën a am baax na. voilà loolu la dogal bon euh, affaire bi dafa xaw a kii la boo bëggee ma yaa ngi fi wala ma continuer. macha allah ma xam naa duñ mën a wax lépp. macha allah c'est bien kon ba d'accord wax nañu histoire bi am ci fii yëpp. loo xam ne dañ ko daan réeré mbir te macha allah am na fi. Hmm. Euh, comme wax nga aussi nattali nga ñu suñu autorités yi comme ni ñu ko waxee ñu fi ñëwee woon. te hmm. effectivement loolu am hmm. na. bu dëkk boo xam ne dëkk business la comme ni ñu ko. jotoon def. Mm. comme waaw foofu laa bëgg affaire business boobu laa bëgg ñu ñu ñëw si yow. waaw côté business bi boo bon léegi nag bi ñu demee nag ba nga xam ne man bon dem naa après finalement xam nga na laa mujj def. après naa du bay ay deux ans. mais ma gis ne aussi liggéey bi ngay liggéey amul njëriñ liggéey boobu boobu temps mille dem lañ lay fay xam nga xaalis ki woon daal. ki woon daal xam nga ba bariwut man ma gis ne daal ma xool sama gars yi nekk fële à fële à seen seen situation baax. nga xam nga de am nañu bien que dañu doon jàng mais quand même am nañu ay lépp quoi bourse naa xam nga c'est genre yooyu quoi jox leen euh, néeg fu ñu dëkk jox leen lépp quoi ñu dëkk si biir euh, ci ci biir université yëpp daal xam nga ma mujj fa laa mujj toppatoo bien que man boobu temps aajoon naa kii yëpp de mais damaa mujj dem dem def samay def samay dëbu dëbal dem ministère ba am ko ma gis rek benn naar temps boobu naar yi dañu baax bokk bokk jóg léegi ñu baax temps boobu xam nga nit ñi bariwuñu kiiwu noonu kooku daal moom ma moo ma ne moo ma moo defal benn lent rek ma dem continuer def fa def ay def ay trois ans quatre ans ba euh, euh, ba quatre-vingt-dix-sept bon mais nag temps boobu nag temps bu nag jëpp nag comme na wax Dubaï mu ngi business bi danaan dox mais kenn xamut woon ci côté Sénégal bi kenn ñaar nga doon ñoo doon ñëw te am na ku fi nekkoon ku ñoon wax euh, grand ndongo Seck ndeysaan donc yàlla yërëm gaañu na gaañu na daaw quoi donc yàlla yërëm moom dong moo fi nekkoon liggéey bi ñuy def nii moom dong moo ko doon def di commerçant bu ñëwee mu leen di fereetal daal ñoom ci marché bi Idrissa Seck moom donc moom ay 92 93 94 donc ba tax man boobu temps tout le temps da nga ñëw Dubaï euh, jaar fii pour ñu am looy jënd quoi mais yenn saa yi nga gën a benn commerçant naan la naan la ah yow commerce foo nekk fii nga nekk ah yow lu tax mënoo ñëw nga def liggéey bi ñuy def nii. billahi wallahi commerçant yi loolu loolu ngeen wax bari lu ñëwoon ñu bari ñëw fii def liggéey foo nekk man ko man maa ngi dëkk benn dëkk c'est cent quelques kilomètres de mu ni looy foofu ñëwal Dubaï nga ñëw def liggéey bi léegi nag xam nga yooyu bi ñu la ko wax ay wax benn yoon ñaar saa fi loolu laa sama idée loolu la kii nag ba ba 97 nag ba ba 97 nag ma daal di soog a ñëw. no fekk avant boobu tax sama benn waaye xam ne ki nga xam ne moom moo gaañu noonu moom moo ñëw moom moo ñëw moom doon doon doon jàng affaire agence quoi euh, affaire kii affaire ticketing ba ba ba jàng agence léegi nag ci la ñëw ci benn euh, agence bi ñu ko wax Air Maroc mu mu may def kii am benn panaar boo xam ne moo ko moom. léegi nag am am commerçant bi fi ñëwoon gàkku gis na ko yow sénégalais la yow yaa ngi fi assance yow doo doo defar visa nga indi commerçant yi eh, ngeen ngeen ngeen liggéey moom xamul woon waaw ñu ne ko après fa la jaaree ñu ne ko am na ku nekk jidda xam boobu temps jidda la la la fa ku ñu wax Badara Mbow. ba moom boo ko defee visa mu ñëw ngeen ànd comme comme saa yi xam nañ ko noonu la ko defar visa ku ñu wax Badara Mbow mu ñëw. mu nekk ak sama waa ji ñu liggéey quelque man tamit ñëw jóg fi ñëw ñu ànd. li mu wax ne à 96. 95 96 ñu ànd commencé nag dugg ci business bi. commerçant yi nag boobu nag commerçant yi nag ñu ñëw parce que ñu ñoo ñoom njëkk a defar visa commerçant mais euh, ce qui est dommage visa boobu mooy visa mooy visa transit ba mu ñëwee woon. dugul bu wax visa transit boobu. gars yi bien que li ñu wax naan yomb na moo tax xale yi fees fi mais naar yi dofuñu de. visa boobu li muy yomb yëpp naar ñu ngi contrôler xam nga ñu contrôler moo visa bi c'est pour quinze jours léegi-léegi la nekk un mois mais quinze jours la woon 15 jours bi da nga war a génnaat parce que loolu dañ ko dañ ko defar que nga ñëw di jënd bagage teel di delluwaat amul droit pour wala nga ñëw vacances ñëw xool delluwaat mais mais euh, ñoom compagnie. parce que fi compagnie ñoom ñooy defar visa compagnie ki ñaari ñoom bu ñu la ñu bu ñu la liggéey immigration compagnie dañuy demande immigration euh, immigration ñu am benn quota bu ñu fay mooy thème bi immigration defar visa léegi nag compagnie boobu yow bu dee 15 jours yi man na génnoo du ñu wax kay dara de compagnie bi la ñuy la ñuy bloqué bloqué du du mën du mën a dugal visa. parce que xam nga booy comme am am nga côté yëpp dafa am déposant booy bu boobu temps euh, boobu temps ay 50 000 dërëm moom ngay déposé nga commencé woon sa visa léegi nag yow bu dee yow am nga koo indi te kooku lu ñuy wax overstay overstay def nga fi quinze jours yu ëpp wala wala ba un mois 30 jours la may mu ëpp benn fan. ñu bloqué sa biir ñu boo waxee yu tax ñu indi la ne la la diw tel tel tel tel passeport nangam kii mi ngi fi ba léegi yow yaay am droit pour nga pour nga xool ko. bon benn munoo munoo ko gis nga déposé dix mille dërëm ñu bàyyi la naar ay business kat lañu ñu bàyyi la nga continuer continuer si liggéey kooku kooku nag dañ koy def blacklist ba au au cas où non am ta am ta tax duñ duñ la faale mën nga fi nekk un an deux ans trois mille faale mais quand même xam nga fi amul contrôle comme Europe xam ne ci souvent su souvent rek dafay am souvent souvent bon souvent police kii ay CID yooyu ñu xool mais loolu dafay fekk mu am problème bu am saa ñu defee loolu rek am na problème bu mag boo xam ne am na comme ay diir wala genre yooyu quoi wala am ku ñu xool am ku ñu wër wala surtout benn salle boo xam ne nii def na def benn diir bu mag ñu koy wër ñoo ñooñu euh, souvent la ñuy def boobu boobu contrôle mais man nga fa nekk un kenn kenn kenn du la kenn du la léegi nag kooku bis bu ñu la téye moom jàpp la euh, baan la yóbbu la kii jël cee kii rapatrier la bu doo fi dugaan nag duggaat non non doo fi duggaat dañ baan bu njëkk ba bu njëkk avant avant 2000 dañu dañu doon dañu doon kii dañu doon kii mais léegi dañu dañu doon baan kii mais euh, sénégalais bi surtout sénégalais xam sénégalais xam sénégalais bi ñu changé passeport ñëwaat yaa ngi ko mën a baax mais après naari génn système mooy que bëtt léegi ñu def benn affaire boo xam fichier bët la bu ñu lay bu ñu lay delloo dafa am comme ni ma defe nii rek damay xool caméra bi ñu daal di ñu daal di jël see bët. comme ni c'est ça moom foofu laa foofu laa bëgg ñëw yow léegi parce que loolu bi ñu commencé def am ñu doon ñëw yow boo ñëwee comme yow def na problème ba ñu delloo la nga ne da ngay ñëwaat boo ñëwee. visa moom da ngay am <laughs> moom problème mais boo ñëwee aéroport bala ngaa dugg ñu la xool bët bu ñu xoolee ba léppay génn ñu la yow taxawal ne doo dugg. doo dugg ñu ñu la yow taxawal ne taxawal doo dugg après ñu ñu euh, bu dee am nga problème bu am jàpp tëj aéroport après delloo loolu moo tax ñu def baan bët bon amoon na euh, ñu bari ay commerçant yu bari yoo xam ne ndeysaan ba léegi am nañu fi ma xam ba léegi am na ñu ma xam da dañu ñëw mais euh, mënutoo ñëw mënutoo ñëw xam tax mënuñoo ñëw parce que dañu leen jàppoon si ay téere ji nga ndomba waaw mais ndomba xam nga au temps dafa amoon dóor naanaar yi quoi te da ngay ñëw ma ne la naar yi moom ba léegi sax loolu ñu bëgg am ñu bari ñu ko bëgg da ngay ñëw ma ne la euh, boo ma joxee cent millions euh, dollars man dinaa la dinaa la yokkal cent millions. genre yooyu quoi léegi nag du Sénégalais rek mais Sénégalais yi man laa xam mais am na Mali am na kii mais Sénégalais yi ñaan ñëw man mii tax. idée bi am na ñu doon jël pour mu leen di traduire bien que man bon comme dégg naa anglais dégg naa arabe c'est genre yooyu quoi dañu doon jël nga ànd ko au début man boobu taa comprendre moo mais mais ci jàpp nañ si ñu bëri am na yoo xam ne am na ci xaalis ñëpp fi fi sama kanam la ñu kii ba léegi nag dóor boobu nag la gars yi mais yi ku ku ñu euh, xam nga fekkee juróom a def ñaari ñett yi rëcc mais ñaari yéen jàpp parce que naa dañoo am sécurité. femme lu ñuy woo lu ñuy wax CID mooy criminel investigation département léegi ñooñu comme comme c'est là ñu ñuy wax police kii. di wala waaw dañoo bari fii façon bu nekk la def. yére pakistanais yére kii fu nekk lañu ñuy dugg. nekk da ngay dool nga xam. waaw dañoo bari ci marché bi doole leen xam. dañoo am sécurité seen réew mi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko kii ba léegi nag ñooñu. Euh, du fekkee ne euh, jàpp bu buñ la jàppee ñu si bari buñ la vérifié fekk si téere ay xaatim ay kii naa loolu nag xam naa ñu dem ba marché nag ñu gën lu wax ñu ne ku ñëw buñ la xoolee si loolu delloo la baan la baan mooy ki kii say bët daal lay delloo moo tax te xam ngeen commerçant yi mbokk dañu bëgg takk ay téere ay kii bon léegi nii xëy na wàññiku na mais ay 10 ans ci ginnaaw wala 15 ans kii loolu moo fi amoon boo duggee ñu bari ñu ngi bëgg a ñëw mais mun ñoo ñëw bële parce que ngeen baan man xam naa si benn ñoo ñëw temps la ñuy fekk si kii dañ lay delloo boobu temps xam naa rek yenn saa yi xam rek euh, na benn affaire buñ buñ ci kër jeex na waaw loolu comme loi la laaj ñoom loi la ñoom dañu respecté seen loi boo xoolee si ndëkk ni mu mel nii nga boo ko gaaree fii amoo droit am lépp lépp parce que lañ lay fayeeku ak lañ lay teg moo metti moo tax seen loi dafa dafa sévère. waaw 400 dërëm. 400 et quelques dërëm. même ci metro lekk amoo droit man bi muy commencé en 2009 2008 si si ngoom laa doon jëy si ngoom ñu ne ma kaay fay naa keroog 110 dërëm si ngoom amoo droit naan ndox waaw te loi bi moom ñëpp koy respecté parce que ñoom dañuy teg. jeex na. jeex na. côté boobu waaw léegi nag ba léegi nag foofu nag fii comme commerçant yi euh, dañu leen wax benn benn naan pourquoi yow doo ñëw ñu ñëw dugg commencé nag di di euh, di di defar ay visa ubbi suñu compagnie. bon compagnie euh, fii noo koy ubbee tamit war naa la ko wax fa ngeen xam ko tey jii fii moom dëkk bi xam xam nga lan lan lan moo fi lan moo fi nekk xaalis tey boo boo boo amee say boo amee sa benn somb kii bu la neexee nga nga ñëw defar sa licence ubbi sa bureau yaa xam looy liggéey xaalis bi dox daal waaw. jeex na porte ouverte amat sa xaalis. pas xaalis bi kii nag mais xaalis boo xam ne nii parce que parce que boo amee sa licence. licence bi mën nga amee ay ay cinquante mille dërëm quarante mille dërëm trente mille dërëm ça dépend bon licence bi ngay fay ci nga amee këyit. nga yaa xam sa jabar yaa xam nga jël ñoo xam ne ñoom ngay ñoom ngay liggéey nga am ñoom kayit mais licence bi da koy fay chaque année nga am sa bureau licence bi moom moom ci moom ngay liggéey mais benn local moo la koy jox. local bi aussi da ngeen waxaale yéen ñaar boo ko joxee chaque chaque année nga am loo ko fay nga nga am loo ko fay sa sa licence ngay moom ngay doxee moom ngay tijji sa yaa xam sa bureau yaa xam sa boutique yaa xam sa kii ñi nga gis ñi yëpp kenn da ko fi xam nga. ñoom ñëpp ay kii la ñuy am licence la ñuy am am seen kii di kii xam loolu xam loolu rek loolu rek li ñaata lay def si réew mi. sama Guinée yi nekk fa kii nekk fa jeex na jeex na waaw te sans compter bi maa la wax mais sans compter séjour bi bon tey jii ñun tey jii séjour tey jii man tey jii partenaire la li ñuy wax partenaire mooy ba amee sa licence naa bëgg yow nekk partenaire ak moom. mon partenaire moom euh, daanaka moom moo gars yi ay manager yooyu quoi léegi nag si partenaire bi si si bi yow am nga si am nga si léegi xam nga au temps cinq ans la woon mais xam nga américains yi kii leen ak kii euh, yenn kii yi parce que naar yi wàññi affaire bi yóbbu ko trois ans mais trois ans mooy comme partenaire mais bu dee yow employé simple nga deux ans ngay am visa deux ans ngay am waaw léegi noonu la macha allah ah. côté boobu uh-huh. euh, ci gis nañu jamono Covid bi wala avant Covid bi dañ daan dégg ñu ne wala dañ daan gis ci aéroportage reportage ñu ne chaque euh, 43 aéroport international bi vol yéeg wala vol wàcc. na uh-huh. loolu lu am la ndax jamono Covid bi am na lu mu wàññi ci bees business bi fii wala tey ñoom ba tey ñu ngi dund Covid bi ba may nañ nit ñi liberté. waaw ah. nit ñi dox. ci si si jamono waaw kañ di nga Dubaï Dubaï si jamono ko Covid bi amoon na couvre fa ñoom mars deux mille deux mille vingt bi affaire bi ba bi affaire bi commencé ba nga xam ne réew yi pour commencé tëj ñi kii tëj biñ si affaire boobu ñoom ñu daal di annoncé ne dañuy tëj ñoom tamit seen ñëw seen ñu arrêté Emirates vol nga xam ni seen seen vol bi nga xam ne mooy volu Dubaï xam nga Dubaï am na am na vol spécial moom moo tudd Emirates am na vol moom moo tudd Etihad waaw Etihad moom tamit seen vol kii la ko Etihad wax dëgg tax ñoo njëkk kii kii mais mais quand même Dubaï xam nga Dubaï si. bu am doole la parce que damay gis am doole la mais waaw mais ba léegi nag ba léegi nag Emirates comme comme Dubaï ñoo ñoo gën a kii business Emirates moo gën a dox. waaw mais kam Etihad tamit xam nga comme am na ñëpp xaalis comme la wax buur yi pétrole fa la ëppee buur fa nekk dañu am dañoo yor waaw ñoom ñoom ñoo ko seq quoi. donc euh, donc sëriñ ñu si sëriñ ñu arrêté mu bañ a demati État tamit noonu te ñoom ñu d' accord que que ñu daan arrêté ñu ñu ñu annoncé dernier vol ñu tëj aéroport yi comme comme ko ñëpp tëjee rek ci mars 2020 mais ñoom après ñu tëj mm, mars bi fee ñu tëj ko un mois rek lañ tëj ñoom mooy mooy apad apad baniyaas baniyaas naa sokkee noonu boo jëmee si ci matin ba ba police non pas Wimpi naay police foofu waaw mooy forage bi ak forage bi nga commencé ba ba ba Niass foofu yëpp lañ tëj kenn maanaam xam nga foofu mooy central marché bi foofu lañ tëj kenn dafa dugg un mois ña ña fa du ñu génn man amoon naa quarantaine man amoon naa jarbaat yu fa nekk ñu dëkk mooy ki bi di nekk asal ak beneen kooku dem dafa dem Sénégal tabaski mais ñun bu ñu bu ñu toggaan kii euh, kii man maa leen yóbbul ba si foofu dañ ko defoon barrage ñoom ñu ñëw na jox leen ñu yóbbu. waaw ah, dañ ko tëj waaw dañ ko mais après Dubaï bi ñemee ba ba mat un avant koor gi Dubaï daal di tijji ñoom ñi jigéen ñi ay business kat lañu seen seen waa ji ñu koy wax Cheikh Mohamed Racine mooy doomu Cheikh Racine bi xam moom a gaañu Cheikh Mohamed moom bopp yëpp mooy business autant autant xam la loolu wax autant wax naan Dubaï ku fi nekk di liggéey boo amul salaire dix mille dërëm c'est nga dem maanaam mënoo fi dund parce que fii ñun léegi la lu yaay xaw wàññeeku mais ñun fii su lu yaay dafa seer xam nga rek vie bi nii seer ñoom li ñu kii bon ba léegi nag après euh, ci euh, ci la ci la gars yi tijji affaire yi ñu exige nag max masque moom booy génn obligatoire am nañ tax ba ay yenn somme yi 3000 dem la ñu fekk sàngaroon waaw mais teewul ne mais mais teewul ne loolu rek la parce que un boobu lépp tëjoon mais après ñëw tijji tijji tijji baar yi discothèque yi métro yi lépp dox. ma bitig non waaw xam naa xam naa ci réew mi bon annoncé nañ ko nag doon ko wax mais gis ñu daal. non non naat gis ñu daal gis ah, lu gouvernement Sénégal annoncé moom ne dina joxe est-ce ah, xëy na ñu daal gis ñu woon dara. même même même temps boobu année boobu lu yaay wax nañ koy wàññi wàññiwuñu ñun ren ji lañ soog wàññi suñu yaay mais daaw mu wàññi woon ñu bari rax fi après dañu tuxu ndax ndax li ñàkk wàññi quoi. donc amuñu woon benn kii daal kii wu ñoon daal mais dëgg naa am na euh, ay ay loi yoo xam ne nii bitig yoo xam ne nii wàññi nañ ko parce que comme marché bi ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo tëjoon un mois doxul euh, dañ ko wàññi. bàyyi yéen bàyyi yéen yàqul nañu ñu yàqul nañu seen wax. ah wàññi seen kii eh, kii nag dama xool ma sama baraade fàttali dama xool baraade. ok ok léegi côté boobu macha allah wax nañ ci Covid bi Mhm. en même temps xam naa dañuy bàyyi rek nga waxtaan nga parce que wax nga ñu histoire bi am particulièrement Dubaï. Mhm. Mhm. parce que euh, liñ ci daan dégg yëpp tey leeral nga ñu ko même ñu ñu amoon envie ñëw fi xam nañ wala ñi nga xam ne peut-être danañ la xam euh, macha allah Sénégal nag war a organiser expo 2020 mooy expo 2020. 2020 fii ak tey doomu sénégalais yëpp foog naa képp kuy sénégalais kontaan nga ci yow en tant que commerçant du transit euh, am nga ci loo ci mën a loo ci mën a baaxee. parce que loolu yëpp dafay dafay wane kiiwu naar yi rek jàmbaate naar yi ak ni ñu bëggee yaatal seen seen réew lu ñu bëggee defal seen seen affaire yëpp parce que euh, parce que expo bi dañ ci dañ ci xaru ji nga même Covid bi ñëpp doon wax naan affaire bi day yàqu day kii mais ñoom dañ ci dañu taxaw parce que ñoom liñ ci def moom moo bari dañ ko préparer investir xam nga préparer defal ay kii yoo xam ne nii yëkkati ay yeneen building defaral seen kii ay village waaw hôtel defar ay kii moo tax ñoom dañoo dañoo ji gëm-gëm lañ am gëm non ñii ba ban affaire lañ waaw donc euh, loolu moo tax na dëgg yàlla li mu am nii moom dañ ci kontaan lool bon aussi tamit di di ñaan rek euh, Sénégal ñëw ak jàmm bon ñu am lu ñu bari lu luñ fi jàngatee am bari am bari fi gisee. waaw loolu moom vraiment dañ ciy kontaan lool yàlla yàlla sottil yëpp yeggal yëpp ñu yegg seen jàmm yàlla defar suñu affaire yi ñëpp incha waaw loolu moom vraiment waaw lu am solo daal lu am solo la. macha allah bi fii lay yem. Mhm. waaw tàggatoo bi may waaw tàggatoo bi may mooy damay gën a ñaaxaat sànq maa ngi yaa ngi wax sax xam naa laaju boobu question pour xale yi xam ñoo fii ñëw ak yooyu. waa jeunes yi donc waaw di leen nax barki démb ambassadeur fi leen nekkoon ndeysaan ajuma non samedi fii la ñu fii la fii la yenn ñu ñu siy waxtaan ambassadeur mi ngi si dox bu baax ci affaire bi parce que maa ngi dégg ci xalaas ci ndoy baan ñu siy wax naan am na benn waaye bu ñu tiliande boo xam ne ko xam Brésil nekkoon jox woon 43 millions xaw ma 80 millions benn waaye fat naa turam nee na bi mu ñëwee waa ji jóge Brésil ñëw bi mu ñëwee euh, waa ji daw ñu ne ko waajaa ngi fii Dubai ci la Ndoubène ndax Ndoubène ndax di waxaale neene moom kay ku ku am kii rek Ndoubène ngay dem taay am na kenn ku ñu tamit ku ñu waxaat tamit euh, ku ñu wax fay mais am na kenn ko xam ne wax ambassadeur nee na ma kooku euh, en tout cas daal ñoom ñu ngi si dox c'est bon nit ñi moytu. parce que fii d'accord que visa yi ñoom xam nga naa bu ñu bu ñu bu ñu waxee visa yi mooy que dañ koy defal ki nga xam ni commerçant la. en tant que tel mu ñëw indi ay millions jënd bagage euh, ñibbi wala ñu defar ko koo xamee nii dafa ñëw vacances wala ku mel ni yow da ñëw pour am liggéey boo fi def nga ñëw delluwaat mais pas bu ñëw toog parce que fii bokkul ak Europe fii liggéey fi am liggéey fi am Sénégalais duñ ko liggéey parce que xam tax xam tax loolu ji nga fii Indien yi euh, xam nga fii dafa frontière ak Inde Pakistan Bangladesh Sri Lanka donc mooy côté asiatique boobu ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp avant pétrole bi ñoom ñoo fi nekkoon. ñoom nag fii benn cent dërëm xaalis ba si ñoom inde ñi ko ji nga comme Sénégal ñu xeebu ñu ko parce que xaalis ba rees si ñoom bu ñu leen fay sept cent dërëm huit cent dërëm dañuy jël mais si affaire sept cent huit cent dërëm Sénégal Sénégal bu ñëwul fii ñu ko fay huit cent dërëm mille nañ wax nañ wax mille nañ wax mille dërëm ñaata ay cent soixante mille cent cinquante cinq mille parce que kon moo mi day yëg a wàcc xool kooku mu bëgg si fay néegam bëgg si fay lekkam waa Sénégal ku kuñ ne génn nga jël nga avion yaa ngi fii ñu yaakaaral lu nekk xam nga kooku xam nga kooku kiiwul donc nañu moytu ñu leen di nax na leen ay 3 millions 2 millions dañ leen di sonal fii ku fii ñëw day fekk nga am sa contra ñu jël la nga am sa contrat bien que am na yenn saa ñu am chance ñu ñu am ay liggéey mais problème moom mooy bu nga am bu nga man ngay ñëw nga nekk fi un an deux ans xale yaa ngi fii si mbedd mi di da leen di yërëm da leen di yërëm parce que non seulement que fu fu yaa wax léegi fu football xale yaa ngi fi ah di di di euh, seen papa di fay ay 1 million 2 millions leen fii parce que fi football man amoon naa benn euh, booy bi fu nekkoon en mille 2002 2003 ku ñu wax Cheikh Diop mais xam nga kooku bi muy ñëw naar yi dañ lay soxla dañ lay seetaan en télévision vidéo ba gis la ñu dem daal lay jëli Cheikh Diop ñoo bokkoon toon Guédiawaye suñu ko jàpp saam doon fa fowal benn booy bi mën na kii mu jóge fa dem Tunisie Tunis la ko naar yi jëlee indi ko fay xaalis bari jox ko logement oto lépp di ko fay xaalis bari bi mu defee bi muy temps boobu loo loo loo sant mu bëgg dugal. damaa dem stade di seetaan yi mais après bu ñu ba dafa 3 4 xam nga mu nekk xaw a nekk mag affaire am euh, kii am daal di xaw a kii. asam xaw kii naa di xaw a kii mu mu fi mu teel a combat affaire jóge fi daal dem Soudan jóge fi daal dem Europe ak ak ak Europe. donc fii naari bu ñu lay jël football dañ lay soxla indi la mais boo ñëwee nii en tant que tel ñëwut yi da ngay sonn da ngay sonn kenn du la jël ba pare yow nga am ay nga ay problème donc parce que fii boo fii bokk la problème boo ñëwee parce que fii ñi fi nekk ñëpp seen bopp lañu tal parce que ku si nekk fii logement yi seer na dund bi dund bi metti na te liggéey bi amatul ba kiiwul noonu donc il faut sénégalais ñu ñu xam loolu ambassadeur nag mi ngi si dox baax képp koo xam ni ñëw nga fi di def ay diir ay kii dañ lay jàpp parce que ambassadeur moo xam ne am na koo xam ne nii bi fi biñ koy dégg mu ngi mu def ay dem ci photo ci oto yu rafet di photo ndax Sénégal naan leen boo ma yónnee 3 millions 4 millions ma jël oto bi ma sa kii ambassadeur nee na kooku dañ fa dafa yebal ku mu yebal mu dem si ay gars yi localisé ko daal ko jàpp actuellement ñu ngi ko ate pour ko pour ko delloo. ki ñu waxoon noonu keroog ci Ndoye Bane maa ngi dégg xal xalaas Ndoye Bane di ko wax kooku noonu certain ki la canton ma ñëw boobu parce que man Sénégal laay wax xam naa ne ñoom nañ ko dégg kooku noonu ambassadeur amba ambassadeur na ma kooku tamit nañ ci def ay pexe bu soobee yàlla ñoom ñëpp la ñuy jàpp parce que fii nekkul dëkk boo xam ne nii da ngay ñëw parce que dañu am sécurité te ku fi nekk dañ lay localiser te buñ la jàppee dinañ la tëj daal lay atte voilà di dal di dal delloo daal di delloo Sénégal. voilà. bari nay victime ñu ma rencontré wax nañ ma problème te leen nag gars yi xam ko bu baax ni message bi surtout rek moo bëgg a jàllale mooy pour que doon gardien de bii moom il faut deuxième division nga mën a yem mais première division mooy club yi gën a mag comme ni koy amee mënoo fi am contrat parce que seen loi la deux joueurs la ñu am deux heures deux heures deux transit vraiment mm-hmm. mm-hmm. kon di la jaajëfal bu baax a baax wax mm-hmm. gudd na mais macha allah am na solo jërëjëf kese la di leen jaajëfal ku nekkan ci kàddu gi di euh, image yeeg montage bi yëpp